xamoon nañu ni fi ñu pexé moy fexé fexe dul nekkee candidat mais yalla moy ki dogal parce que tay ji xeyna confirmer nañu li cour d'appel waxoon pour jéem ko tëj pour jéem ki mais Khalifa Sall terewu ko nekk candidat parce que rabat d'arrêt bi ñu wul woon gis nañu avocat yi ñu jël yépp pour ñu dëgal ci bop sénégalais yi ni rabat d'arrêt mënul téye procédure bi mais rabat d'arrêt bop da koy téye parce que loolu la loi bi wax tay rabat d'arrêt bi nous avons un mois pour déposer le cours. donc un mois dina fais que les candidat yi parce que un mois pour déposer pour mu définitif Nous un mois pour li su candidat yi dañu passé d'ici un mois madame, fin janvier début février début février une partie adverse un deux mois pour répondre élection présidentielle kon mënatuñoo fexe ba Khalifa Sall du nekk candidat te tey ci verdict bi ñu génne tey amul fenn fu ñu waxee décision tey day empêché Khalifa Sall mu ne loolu rek lañ doon déglu mais décision tey bi tey déggu leen fenn fu ñu waxee tey lii ñu jël comme décision tey dafa war a tere Khalifa Sall mu bañ ne nekk candidat comme que loolu amu ci jàppale ne Khalifa Sall jéem nañ koo bloqué depu le départ ba ci parrainage bi jàll na lépp te jàllaat na tey ndax rabat d'arrêt bii tey. gis nañu maître Ousmane Sey ak waxam ju bari parce que maître Ousmane Sey moom professionnel wu protocole rëbës la moom loolu rek mooy métier te maître Ousmane Sey comprendre leen ni moo Khalifa Sall ñoo bokk Grand Yoff gi ñuy politique te tant que Khalifa nga fa dafa tekki dara te ñun xam nañu jikkoom parce que moom buy leeral di am lu muy wax lañuy wax protocole rëbës lu mu ko jëlee loolu moo war a jiitu moom monsieur protocole lañ ko xamee ci complot lay dox tey nag liñ naan délégation à l'emprisonnement rapide te délégation à l'emprisonnement rapide la ñu gis mais loolu yëpp terewul Khalifa Sall dina nekk candidat dina gagné élection yi te dina jóge prison rëbës jëm pale bu neexee yàlla léegi nag képp ko ci def lu ñaaw ëllëg di nga répondre ñi nga ñaan yàlla Sénégal ki koy yor ëllëg fexe ba ñu am justice bu indépendante ba am ba ñu am justice bu couché